di ñaanal xalifa bi Serigne Abdou Samad mi nekk ci bopp njaboot gi yàlla yàggal ko te wéral ko di leen jéggulu coono yi bu baax Cheikh Abdou mi nga xam ne moom lañ ñu booleeloon ak ay kilifaam ak ñi ànd liggéey bi mën naa ne semaine bi yépp noppaluwuñ def ay plateau def ay appel dem Dakar ñëwaat Daaru def fu nekk ngir jéem a wone lenn ci liggéey jàmbaar jooju Serigne Mamar Sey na yàlla nongu ko te gërëm liggéey bi liñ ci séentu woon te bëggoon ko ci te taxoon ñu woote ko ba féetale ko ko gis nañu ko loolu mooy rek yeesalaat dund mag mi ak seeni njàngale defe naa semaine bii loolu xew na ci thème général bi ñu jëloon tey ci màggal gi mooy Serigne Touba ak mag ñi moo tax ñu waxtaanee fi Abdou Karim Touré di sant sëñ Abo mi xalifa bi yabal na fi doomam ak njabootam ak sëñ Ahmadou Diaw Paxa sëñ Thierno yabal na fi doomam yabal fi ay njabootam ngir ay plateau waa kër sëriñ Mor Roqaya Bousso sëriñ Fallou it yabal fi ay njabootam ngir ñu ànd jataay bi loolu lépp liñ ci jublu woon rek mooy tànn jataay yoo xam ne dañuy delloowaat ci waxtaane mag ñi yàlla na yàlla fayal ñu leen di sant sëñ Aydara Mbàkke moom sëriñ Dam Faati moom Cheikh Ibrahim muy sunu kilifa te dégg ngeen kàddu yam solo yi nga xam ne moom la fi jàllale di gërëm bu baax Cheikh sit la di ko sant ak mbooleem mbokki Louga yépp ak jëleeru di jaajëfal njabootu gi nga xam ne ñoom la àndal waaye njabootu sëñ Mor Samb gi ñuy suñuy kilifa di suñuy xarit taalibi bu ñu gërëm moo mën a am bu jógee jëm fi béréb ay kilifaam ànd ak moom loolu nag yàlla na yàgg mu nekk nit ku dal nit ku baax bu ma ñëwee Louga dinaa nekk fi moom wala ma nekk Sëriñ Laat Sëriñ Laat bis bi it li tax ñu jox ko ci biir cër mooy nit ku baax ne ci biiri bokkam yàlla na bu amaatee yeneen wëlëre ci yeneen béréb ñu won leen ne lu baax lim nekkee foofu mi ngi koy nekkee feneen ndax seen yaakaar mën na gën a dolliku waaye seen xel gën a dal Cheikh Abdou sant nañ la baax teraanga